mbokki téléspectateur télévision Futur Média ñu ngi leen nuyu di leen ziar fi ngeen naan seetaan yéen ñëpp rawatina ci guddi yu tedd yii ci guddi gu mag gi ñuy waajal te suñu maam Cheikh Seydi El Hadji Malick radiyallahu anhu invité ci umma islamique bi yëpp ñu war a màggal mawlidu nabi sallallahu alayhi wa sallam nuyu bu baax sargal wàccee ki nga xam ni tabaarakallahu yéeg na ba noppi mooy xelu général des Tidianes cheikh Seydi Aboubacar ibnu cheikh El Hadj Mouhamadou Mansour ibnu maam cheikh Seydi El Hadj Malick ridwanullahi alayhim jamian Serigne Babacar Sy Mansour éminence yàlla na dund ba jumaa maamam ji moom xalifa général àggale ko naal bu rëy la l'islam bépp taxaw ci ginnaaw xalifa général mu julli ko umma bi yëpp amati ndam nuyu nag rakkam ji nga xam ne tabaarakallahu mooy cheikh El Hadj Malick ibnu cheikh El Hadj Abdoul Aziz Dabakh sëriñ Maodo si Dabaax yàlla na fi yàgg te wér waaye jaar ci ñoom ñaar nuyu mbooleem njabootu maam Cheikh Seydil Hadji Malick ridwanullahi alayhi nuyu mbooleem jullit yi rawatina xalif généraux yi kilifa diine yi ak aada nekk ci réewu Sénégal bi hadi rasul nuwajjihu al ajiala mooy thème central bi nga xam ni gàmmu Tiwaawan 2023 moom la kilifa yi tànn nañ ko waxtaale kon jullit yi kon leer na nañ ci njubu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci lañ war a orienter les futures générations waaye royuwaay ak référence du ñàkk mukk tey ñu jël kenn ci mag ñu baax ñi muy kan Cheikh Al Hadj Mouhamadou Mansour Bal Qawmi di wéyjuru xalifa général di Tidiane di wéyjuru soxna Fatou Sy Mansour tabaarakallahu góor gu tedd googu xalifa euh, xalifa Seydi El Hadji bu tedd boobu tabaarakallahu ñu war koo waxtaane ànd ak kenn koo xam ni man tashabbaha bi qawmin fa huwa minhum Ba ci xam-xam bi ci yar bi teggin gi waaye nag mu ànd ko wàcce boppam nekk rek taalibe waaye nekk élève université maam Cheikh Seydil Hadji Malick di bëggal jullit di yeeg taalibe yi fii ci réew mi ak bitim réew Serigne Souleymane su ma doon laaj ci benn baat damay laaj kan mooy sa maam Cheikhul Qawmi maam Alhaji Mouhamadou Mansour ah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu wasalaatu wasalaamu ala xayril bariyati xayril xaliqa seydina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu an taabiina ajmain wa an jami ashaabihi ah wa radiyallahu an cheikh alxaaji malik si sabaqil gaayaati wa saaxibil ayaati wal karamaat al aalimi alladi allama al ilma wal faqihi alladi faqaha al fiqha wa zaahidi alladi zahada zihda zahada zuhda wa dalika huwa abul xulafaa yi seydul xaaji malik ibnu osmaan tabaarakallahu cheikh amada tijaani maa ngi lay nuyu di la ziyaara di la ndokkeel ci weeru màgg bi nga xamante ni bii mooy weeru mbégte weeru bég weeru bégale weeru bégante weeru bégalante muy weeru gàmm tabarakallahu ndax di ci yàlla indi mooy aynul rahmati mu nekk rahmatan lil alamina te ala alamu ismuma si wa dayaani kon ñi ngi sant di gërëm baax waaye ki nga may laaj dafa mel ni wax nga ko ba noppi da nga wax ne kan mooy kan mooy Cheikh Seydul Haaj Mahamadul Mansour moom damay wax ni huwa ibnul jaddi wa tilmidul jaddi wa dajiul jaddi wa tuxfatul jaddi wa minhatul jaddi dama lay bëgg a wax nii que Seydou Hadj Seydou Hadj Mouhamadou Mansour Kado Seydou Hadj Malick la doomi Seydou Hadj Malick la ñaari yoon ndax bàyyi dina la jur ba pare nga ñëwaat mu juraat la man la lam yuulaat maratay ni lam yalija malakuta sama la ñu wax wala lan ja wala lam lam xarfu na fi lay doon waaye lan wa nasbin mudaari an maadiyan wa qalbin mudaari an maadiyan lan du mën a nekk mukk mukk ku yéeg ci asamaan ya ndaree bu dañ ko jur ñaari yoon Seydu Xaaj Malik mooy bàyyam ñaari yoon kon ndax wax na ko ñi fadul alal alal ibni sukkurul waalidayni wa antal waalidul bar doomu aadama day am ndey ak baay waaye góor gi nee na am naa ndey ak baay waaye am naa baay ñaari baay ñaari yoon te benn baay ñaari baay yooyu mooy benn baay bi Seydi Hadji Malick mooy baay bi ma jur tiini yan waaye mooy baay bi ma jur ci diine moo ma jur ci tasawuf kon ma ni kon ibnul jaddi dëgg la waaye toxfatul jaddi ndax may la may la goo xamante ni bii Seydi Hadji Malick si moom moo def tawassul ci maam sa feetu ñang ndax daan na am ay doom yu jigéen la daan am doom yu jigéen baax na waaye bëggoon na itam warisan yarisuhu bëggoon na doom ju góor mu wax Seydi Hadji Malick bëgg naa daal yàlla nga ñaanal ma yàlla maam Alaaji Malick ci gàttal defal ko ñaan war def tawarkàlla tawfiq ta sa tawassul ak mag ña mu àndaloon ci ni ko sëñ Babacar wax sama sëriñ sëñ Babacar Abdoul Aziz nettalee yàlla defal ko tawfiq mu am Seydi Hadji Mouhamadul Mansour kooku min xam kon toxfatul jaddi la waaye da jeexul jaddi nag moo doy waar mooy ki nga xamante ni bii moom ak góor gi Cheikh Sidul Xaaji Malick baayam sëriñam nijaayam ñoo bokk fañ leen denc moo ma ne da jeexul jaddi moom mooy ki nga xamante ni bii moom moo tëddandoo ak baayam ba Sidul Xaaji Malick waaye moo wax na léegi min xatul jaddi may may la koo xamante ni bii soob na yàlla maanaam mu siiwee Seydou Hadj Mouhamadul Mansour senegal ak àdduna bëri na foo dem te dëkk Sénégal wala xam ku dëkk Sénégal boo déggee El Hadj Mansour sa xel teewaam lay dem te ñëpp Seydina Muhammad lañ leen tuddee Mouhamadul Mansour Mouhamadul Mansour boo ko déggee xel yëpp Tiwaawan la jëm. lan moo tax mu séwee loolu dama ne loolu min xatun may la boo xamante ni min min xati rahmaani li Seydil Xaaji Maalik nan la ko mayee loolu yàlla moo def Seydina Muhammad boo xoolee ci xaatimu nubuwa li ko Seydi Hajj Maalik def ah min bayni kit fayi xaataamu nubuwa inda naahi di katfil yusra bila wahami damay bañ a dugg ci côté boobu waaye ci lañ bind te wajja xaytu chita fa innaka mansuuru kon Seydina Muhammad Seydi Hajj Mahamadul Mansuur ko tuddee ma Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ci a dugg foofu loolu tax ñu jóg tey waaye kooku mooy Seydi Mouhamadul Mansour ma ne kon ci tur wi may la boo xamante ni min xususiyaati xadratil malikiya nga ni Cheikh as Seydou Alhaaj Mouhamadou Mansour mu nekk juróomi martaba bu ci nekk martaba la martabatu siyaada as Seydou man saada xawmahu kon huwa Seydun ak càng ak càng dañ koy doon mën nga koo liggéey ba doon ko yàlla mën na la koo may moom naa la asiyaadara bil wiraasati wa bi mawhibatin wa bi kasbihi ñëwul rek doyloo doom Seydi Hadji Malick déedéet dafa nekk doomu Seydi Hadji Malick bi tawfiq minallaahi wala yàlla yàlla def ko mu nekk ab sang waaye itam mu incarné ko tabaarakallaahu ndax dañ naan ko Seydi Hadji Mouhamadou Mansour déreetu gar mi ngeeg wilaya moom moo nga xamante ni bii ñaari yu moo sëg Seydi Hadji Malick moo tax bu xam ne c'est un grand homme Seydi Hadji Mouhamadou Mansour il a marqué son temps et son époque léegi nag tabaarakallaahu Seydi Hadji Mouhamadou Mansour nga ne alxaaju alxaaju moom leer na dafa oh, wax nit ñi dem màkk bëri nañ waaye Seydi Xaaj Mahmoud Mansour laysa man daara ad-dariha kaman daara saaxiba darihi wa laysa man daara qabra rasulillahi kaman daara nuura rasulillahi Seydi Xaaj Muhammad Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa Seydi Xaaj Mahmoud Mansour xajja wa daara ad-dajia Seydina ad-dariha wa saaxiba ad-darihi waaye wa zaara ruuxaaniyata ruuxi Seydina Muhammad lidaa qaala xiina aaba min xajjihi falamma danawna min sana badiri wan jala min sanal badri kon nuuraaniyatul badri la wax kon moom bi ma demee ndekete am na ko dem aji sa jëm ma dem waaye sa ruux demul nee na moom bala may dem sama ruux moo njëkk a contacté ruux Seydina Muhammad ma ziar Seydina Muhammad sama jëmm doog a ñëw ci kanam moo tax moo tax ba mu dem ba ci biir mu ne wa min bari xayri rusuli at loo kitaabiya kon alxaaji léegi Muhammad falaa Muhammad illaa Muhammad falaa Muhammad illaa Muhammad Muhammad yëpp benn la képp koo déggati turandoo Muhammad la Muhammad benn képp la xanaa xamuloo ni Seydina Muhammad moom rek mooy ki nga xamante ne am na turandoo te ñëwagul am na turandoo te ñëwagul àdduna waaw tabaarakallaahu ndax <laughs> ahlul kitaab borom téere yi xabaar yi. dañoo déggoon ni am na yonent bi nar a ñëw Muhammad la tudd ñu anticiper ba ko tuddee Muhammad nekkati yow ñoom tudd ñu Muhammad seen turandoo ñëwagul waaye moom lañ ko tuddee moom Seydina Muhammad rasulullah kooku Seydina Haaj Muhammadul Mansour léegi nag yàlla subhaanahu wa taala Seydina Muhammad huwa ahmadu man hamidallaha fa kaana muhammadan Seydina Haaj Muhammadul Mansour i'tadala anil anami wal kalami fi fayfa ijak saaw taarika taama wal manaama izdihaman wa musnisan bi rabbil anam bàyyi na fi lekk yeeg naa ni bàyyi fi waati waawan dem dëkk ca àllu jak saaw ba naan yaa rijaalillahi hubbu yaa rijaal allahi hubbu laysa siwa allahi rabbu lan tanaalul birra hatta tunfiqu Seydi Hadj Mansour ci jamono jooju ci bu muy wut asiyaada muntaha siyaada ba ci dugg ci alhamdu daan nekk ci àllu jak saaw naan góor ñi bu nekkee ay góor ngeen jóg leen góor du nelaw guddi radiyallahu anhu Hadj Souleymane su ma la doon laaj benn message boo xam ne day tax ñu am yokk suñu cofeel ak wut référence ci sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi yonent bi lan nga ñu mën a jàngal ci mbindum moom alxaaji Mouhamadou Mansour lu jiitu ngay tàggoo ñu tëj émission bi Hadj Souleymane. monsieur Hadj Mouhamadou Mansour am benn stratégie bi mu doon wax naa ne sayduna muhammad moom mooy turandoom waaye da koo jël xam nga sayduna muhammad lay saxeerul wara yajzi bi sayyi'atin ya'fu wa yasfa'u safhan an musii'ihim góor gi neen alxaaji Mansour dafa jàng ne mu ne bu nekkee gor wala ngay gar mi ku la def nga defaat ko matoo waaja dañ la koy jiiñ bu nekkee koo jekku jég koo jekku jekkali ko doo waaj dañ la koy jiiñ ñu ko si noo def mu ne koo jekku da nga koy jéggal kama kaana rasulullah yafaalu moo tax mu ni idal kalbu lam yudika illa min nabaxihi fa daahu ila yawmi alqiyamati yambaxu wa kam laama ni baadu alahibati ani sukuni wa sukuuti wa ma sukuutu suquutu xawfin wa jadain wala in ila annani raaytu ida lam yabqa min bayni al ixwati gayru muaradati walmuqadabati wa tuhumati sumtu firan min alcheytan wa qaala sayyidul xaaju malik si ibnu usman idal kalbu lam yudika illa min nabaxihi fa daahu ila yawmi alqiyamati yambaxu nee na bëri na ko ma fekk ma toog ni dégg mu ne waa Mansour lu tax doo réagir mu ni fi doon naqari ci man ak lu ma doon naqari maanaam connexion naqari ak métit sama baay da koo déconnecté ci man laqad raada qalbi qablu cheikhi murabbiyan falaana li dawaratil xutub ma faasilu moo tax ko bëgg a nekk ci dëkk jubóog ñëpp te nga ni kenn du la def dara da ngay nax sa bopp faaw ñu lay def yàlla di natt ba xam yow li nga koy def mu la koy muñal ak li la jaamam def noo koy def ak ñoom kon liñ ci ci jamono bi ñu toll liñ ci walla a jàng mooy at taxamul encaissé xajoo ñëpp forgive and forget. jégal ak jëlale. forgive and forget da ngay xam yëg passé à d'autres loolu moo doon Seydou Hadj Mahamadou Mansour moo tax dafa lay jàngale nga baal ma dina jël sa temps bi waaye dafa nettali benn histoire bu doy waa ci wesaram bi moo ko bind moo damay wax toujours xale yi nga xamante ñoo ne ci xadra bi di waxtaane Seydou Hadj Malick ak mbindam ils n'ont pas droit ci ci ci ci maanaam sos seen wax yi boppate wax yu mag ñi nekk fi ku ci nekk li nga wax leçon de vie mën nañ koo jàngale xool anu charwaan boo demee ci wesat ba maam Mansour Dani anu charwaan dafa génn di doxantu bi muy doxantu gis benn moom moo doon buur ba mu gis benn jardin bi mu gisee jardin bi mu ni mu gis mu gis fa benn benn benn benn benn benn benn mandarin wala benn roman benn benn grenade mu ni gardien bi jox ma grenade bi parce que yaakaar ne il est autoritaire booy bi jox ko ko bu mu ko daajee lekk mu neex ci xalaat bi mu ne dama koy nangu ci xelam dama koy nangu parce que ci misaal mooy président de la république muy da koy nangu mu xool gis bu gën a xonq boobu mu ne ko xale bi jox ma bële booy bi jox ko ko boobu mu mos ko boobu gën a wex mu ne ko li ma tax a yaral haadi xaala lan moo tax bii neex bii wex mu ne ko parce que bu njëkk ba buur bi jàmm la fi indi moo tax jàmm ji yàlla fekk ko ci grenade bi waaye ñaareel bi buur bi dafa fas yéenee tooñ moo tax yàlla wax grenade bi mu wex magaan boo jiitee nit ñi wala nga ne kilifa ci sa biir kër wala ci quartier bi wala ci réew mi booyee boo nga seq nit ñi jàmm ndax annaasu wal xalqu population ñëpp ibaadun li rabbin waahidin wa mamlukun li malikin waahidin loolu moo doon incarnation Seydou Hadj Mouhamadou Mansour moo tax mu xajoo ñëpp xajoo ñëpp xajoo lépp moo tax mu ni tabaarakallaahu gordu geesu wa baada salaatu wa salaam ala rasulillahi ñoo ngi nuyu nag ki nga xamante ni mooy alxalifa tabaarakallaahu yàlla na ko fi yàlla yàggal te wéral ko muy sëñ Babacar Mouhamadou Mansour laa zaala mansuuran kama kaana abuhu mansuuran yàlla na fi yàlla yàggal yàlla mottali yéeneem yi ci njaboot gi tabarakallahu di nuyu nag ki nga xamante ni mooy tabarakallahu sëñ Modou si Dabaax tabarakallahu ñoo ngi nuyu nag sama sëriñ sëñ Babacar Abdoulaye Dabaax moom seen rakk ji nga xam ne wuutu ci daara ji tabarakallah wuutu leen ci taalibe yi di ñaan yàlla mottali ci njaboot yi leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala di leen ndokkeel ci gàmm gi tabarakallahu Cheikh Tidiane bismillah jërëjëf euh, Serigne Souleymane Ba lu neex du doy bu ñu jëloon ñetti waxtu walla ñeenti waxtu wala journée entière wala un mois wala ay at góor googu nitu yàlla ko baax kooku di Cheikh Mouhamad Alhaaji Mouhamadul Mansour Bal Qawmi borom ñaari kaala yi ca dàkkantal ba mag ñaa ngi noonu nit ki fa muy jógee di fa jege di fa jege su ko jigee du fa jógee di ngeen ñu topp ci télévision Futurs média may ndokkeel jamaatu nur sunniya jaar ci coordonnateur bi nga xam ni mooy alxaaji Mouhamadou Makhtar Cissé ak mboolem góor diine yi nga xam ni ñu ngi koy jàppaleen ngir mottali liggéeyu juma maam Cheikh Seydi alxaaji malik ci ndigalu xalifa bi Cheikh Seydi Aboubacar Mouhamadou Mansour woy gi nga xam ni mooy njabootu ki ñu waxtaane tey wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.